lu am solo la ci doxunu démocratie ak doxunu réew di sant bu baax suñu borom bu ñu fekkee bu ñu mat may ñu fekkee di sant muy lu am solo tey li ngeen fi gis loolu lay démocratie du doxee mais gis ngeen ne am na député yu taxaw ànd ak yar ak tey di laajte ay question am député yu taxaw di saaga ay ministre laajte wuñ dara loo xam ne mën na avancer Sénégal man nag li ma doon laaj Sénégal di laaj gouvernement Sénégal mooy li wax contenu local ñu koy wax ci anglais local contents léegi loolu mooy souci comme dañu am pétrole ak gaz suñu ñëwee lan la société Sénégal yi muy lu am solo parce que le pétrole gaz am solo mais réew lu koy développé Moi, entreprise il faut, il yi ñi fa dëkk Moi, ko privé national ñooy développé un pays te l'eau, le président de la def ci am lu solo muy nga xam so soo demee ci constitution à son article 25. cinq dañ pétrole beeg gaz bi réew mee ko L'eau, le président da muy une révolution dans le monde nga dem ci code pétrolier article 58. nga gis lim ci def ak la décret d'application bu muy def 2020 mille pour entreprise Sénégal nak nga xamné privé national bi privé bu am doole la tay ki fi ëpp di joxe xey sénégalais entreprise sénégalaise la yor nga gis ay capitaine yu meloon ni Aliou Sow tay nga gis ay Ablaye Dia nga gis ay Moustapha Ndiaye mais ñu ay sénégalais la té li nit ñi di wax.

loo moom na nga koy nangu jox donc loolu muy lu am solo te président de la République loolu la gëm te loolu di lancer Sénégalais yi ne d'ici 2024. Inshallah, Sénégalais yi dinañ li wax pétrodollar de ci Ils vont nit ñi dinañ dund comme ni Qatar ni euh, à Dubaï ay at yu avec le président Macky Sall tout est possible yeneen jugement ñu ngi ciy explorer te loolu yëpp lu possible je suis dans le secteur privé député là j'ai des centaines et des centaines d'employés

télé bi nga nek yow caméra bi nga yor micro bi dañ bëgg ñukoy défaré Sénégal mais lolu c'est un combat de tous les jours mais li ci am solo li ci président de la République def djégo yi lu am solo la nañ ko reconnaître et puis ñu avancer détention arbitraire yeen correct ci yeen la bokk de ngeen limu wax ci journal ño xamné ne dañu te yeen ay journaliste amna lo xam du ngeen ko def du ngeen tëdd fi ngi tak ñew leen taal fii bëriwul yeen du ngeen ko def ay professionnel ngeen keneen ku bëgg nek journaliste té amo carte journaliste amo jàng jàngaluñ la ko du sa métier nga bëgg ko def bëgg taal réew mi su boobaa aussi yontal sa kaw li am solo nag lépp mën nañ ko waxtaanee on est dans une démocratie mais force reste là la loi ñun ñëpp loi moo ñu tënk te lépp loo xam ne nii que am na ci réew mi loi moo ñu départagé donc nañ respecter cette loi la